الحمد لله الذي الحمد لله الذي أغناني وأعزني ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ni moom lañ bind s'abonner ba noppi bañ a fàtte mooy chaîne bi nga xam ne moo leen jàngal seen diine jëleen yeey ci mbirum àdduna Ramadan ñëw na weeru Qur'an ñu ànd boolo teeru Ramadan a ngi baytul atfal a ngi Ramadaan a ngi baytul atfaal Ramadaan a ngi baytul atfaal jàkkay di fees mbedd di fees tafsir Qur'aan ci biir day fees baytul atfaal andi Pastef Ramadaan a ngi baytul atfaal Ramadaan a ngi baytul Faal Ramadan ñëw na weeru Qur'an ñu ànd boolo teeru ko Ramadan a ngi baytul atfal

tafsir qur'an ci biir day fees baytul atfal andi Pastef Ramadan a ngi baytul atfal Ramadan a ngi baytul atfal Ramadan a ngi weeru xeer رمضان هي بيت الأطفال رمضان هي بيت الأطفال رمضان هي بيت الأطفال sina ramadan ñëw na weeru quraan ñu ànd boolo teeru ko ramadan a ngi baytul atfal ngi Ramadan a ngi baytul atfal Ramadan a ngi baytul atfal jàkkay di fees mbedd di fees tafsir Qur'an ci biir day fees baytul atfal salaamaaleykum aywa papa yow ni nga bëggee café Touba fàtte nga sa café. dama jëlee ko gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw. ma xaaral ma jël ko rek maa ngi ñëw. yéen seen glace maa ngi seey. Thank you. ñaata lay jar. lii de xam nga ñaata lay jar. 1600. 1600 francs. waaw. ah lan la. nga koy wax maa ngi nii rek. boo fi nee dafa seet léegi ma rey la fii. mais yow sax gis nga lii moo gën a moins cher sax yeneen supermarché yi noonu dem beneen bi da ngay dem ñu la koy jaayee ay 1900 di dem ba mu yegg 2000 nga ñëw fee nga naan ay. xamoo sa bopp yow. da nga fexe ba sama glace yi boo ko jaawlee tey naa lu dóor ba nga xam ne dama sama. loolu la ñuy seet. glace yi koy jaaw mën ngaa jël sama jël sama bopp. 2500. ma ne la rek la rek. ok rek la waxal. kii dafa bëgg jaawale glace yi. jaawale wu ma dafa jël glace sama jël sama glace. tey naa jël sa glace balaa moo réer. xoolal moo nekk naa maman bi ci loolu rek lay nduroo. ah mënoo leen jaawale sax. dama leen di jaawale yow foo nekk naa. Cheikh jërëjëf. yal na yàlla barkeel lépp. jazakumullahu xeyran. yàlla bu di yokk yokk yokk yokk ba ngeen yëg. incha allah jazakumullahu xeyran. waaw fàtte woon. man fàtte woon naa sax indi ma dem jëndi fruit. dama nga jënd fii. billaay nag dama xiif nag. ah. Oh. am a lii yaay mais est-ce que ko jugal dugal si maal bi. ok. nga may xool. dugal ko noonu en tant que dawal kay yow eh. foo mënee dawal baraa da ngay dawal. xool jeex de. ama oh. yow <coughs> danga nga ëppal nag. yow fii ña. léegi da nga gis kuy dawal fii te amul permis. ñu fii Sénégal jaay ñi fi ñuy def bari la ñuy gën a bari. Binta man li ma nakari si yow mooy da ngaa bëgg a nduróole yeneen xale yee nga xamante ne ñu benn avenir. ba léegi déggoo moo wax loolu de. dégg nga la gën a gisee xamal sa bopp dara. yàlla nga mbëkk ak yow de. daj sa glace boobu moo gën si yow. tamit daj sa buru poñ sa de. waaw sa xol baa ngi bu naan gën si ba léegi man nu ma sa moroom ah. morom nga ma bëgg de waaye ma sa ah. morom. tëj nañ ko ah. tëj nañ ko papa. man maa ngi daal sama gaal damaa fi. رمضان جي بيت الأطفال رمضان جي بيت الأطفال رمضان جي ويرو خيوال جنگ قرآن دي سنو ويتال نافلة yow jarul nga maa xool tëdd sa tëdd ak saa eh Jamila eh xool na yow nag heure bi jot nañu wax ak yow Jamila yow lan moo tax munoo maal yow lan moo tax mënu ma teg sama yëf rek ba nga xam ne yow yow doo ko lan loo xam ne yow doo ko jël yow nee nga man lu ma fi nëbb lu ma fi teg yow Jamila dafay sa bi jël ko yéen war nañu wax ak yow. ko dégg su doon jël sa croissant wala léegi maa tay. Ah, feeñ nga sa bopp kon na xamee ne croissant dama tudd ma croissant. kon ay affaire croissant moo tax ñu yàqal ma samay nelaw ni yéen seen morom laa di gis sa gémmiñ gi la ñàkk respect bi mooy lan déjà fekk ngeen moom ma tëgg ngeen yee ma ci ba pare kii naan maa tay kii di jiiñ sa morom lan problème bi. sama croissant laa nga xam ne sama croissant moom yi. waa kër gi ñoom ay mbirum croissant yow tuuti yow soral nga ñu. ñàkk fayda may bëgg a dee. gis nga yow dara sa loxo bi nga ko àgg nag gaaw bëgg benn coow dama xiif nag yow laay waxal. baal ma te jël hmm. jeex na de laa wax man dinaa te yéen joxatoo leen ma respect ma toog fii ngeen di jokkalante ni lan la luy problème bi. wan rek kii mu xale bi. mais déedéet kay déedéet lan xanaa xale yi réew bi surtout ma kee kalamam gu dang. yow Binta yow comme toujours. Jamila lan la. ñun dama fekk ma fii may toog pare mu ñëw fii di ma ji ñëw ma croissant. moo ko sàcc moom moo ko jël ndax man kër yi ma rek moom fi demee noonu yow da am certitude ne moom moo jël sa croissant. moom croissant daal moom moo ko jël croissant man dama ko tegul sama bakkan bi kenn ko laal. waaw ma wax nag muy argumenté comme si da ko jàpp ci loxo ne moom jël croissant wam bi ma lekk dem ci guddi bi ma xiifee <laughs> kii sarak la. non déedéet man Binta léegi dama ko comprendre tul dara dara dara dara dara yow kii même boo ko jàppoon mu jël euh, sa croissant sax war nga ko baal problème bi war na mën a bañ a yegsi si man. kali kii ci boppam moo teeyu dafa teeyut. dafa non jikko jikko Binta dafa mu mujj dépassé. léegi dafa màgg peese boppam mun a xaaral léegi. comme hmm. si dafa am keneen ku nekk ci mbedd mi di inculper ci moom ay euh, jikko yoo xamante ne nii du moom laa ko yaree ci biir kër gi. màgg rek loolu yi foog moo ko papa nag dañ ci war a. màgg rek. sa rakk la boo ko fekkoon ci mbedd mi ñu koy doon nii ngay comporté woo ak moom lii laa la jàngal seen papa ak ni mu veillé ci seen éducation lii la leen jàngal nii ngay comporté wo ak sa sœur. non je te demande tontu ma. lu mel nii bëggatuma ko gis sa diggante ak sa rakk dégg nga que ça soit la dernière fois nag muy amati sama kër dégg nga te kii sa rakk la nu nga ko yërëm yow boo ko yërëmul est ce que ñi sees dinañ ko yërëm Jamila kii ak nu mu sa mag la bu ko topp dégg nga te lépp lu mu la diggal su dee li nga xamante ne nii moom moo dëppoo ak li charia wax dee ko def parce que sa mag la d'accord yow moom neex ngaa waxal soo koy yi leen ñu dem préparer. jug leen ngeen xëdd ngeen taxaw fii nag gën naa ral nii ni nga ndox kay cim da nga jaawale nii gàcce du la rey cim man tiñ mu ne jeexal di jaam وأسألكم عليه من أجر a من شاء أن يتخذ إلى ربه. papa taata naa de salaamaaleykum. waaleykum salaam man ko xaw yaa taata xaw ma saa affaire yi daa mel ni ñun la de parce que xale ñoo nekkoon fii di xuloo. parce que di di julli ngeen wax wax wax wax rek fajar tey bi dangeen am ay dëkkandoo. waaw loolu xool seen yaay wax rek. d'accord dégg ngeen mooy ku leen loolu dangeen gaaw préparé julli. d'accord incha ko الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا بالدلف النار ويتسنا رمضان يونا ويرو قرآن نيو عند بالو تيروكو رمضان أجي بيت الأطفال الحمد لله ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran TV mooy seen bi nga xam ne mooy leen di jàngal seen diine jëleen yaay ci mbirum àdduna